Sering bi nak mom ci da na togi ñamam ka fem di bégal mbolo mi yon waangi serigne bi dëli ne ko gis mu man ci bisam bis bañuy jaax la dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonk bisam da na raw ke ko fonkul ras bu gaaw baangi tane na am ci dunya ji ci xeeti payen

ma ngi don for beut yow. yow waxuma la for nga beut way di nga ngeup sax bakkan. bal li ngay wax. tey yow tay sax yow. bay Mbarick lay xaar sama ganug daw ga ku xess ka. dal nga ci nak hmm màggalu seigne touba gi yaa si njëkk a ko am ci gan. bu lol way way yow ma ni. karuma eh, bu ma um de. santal yalla ñepp da nañ am gan ndax kuy tok yaay am gan. lo ñëpp dinañ am gan waaye ñëpp dinañ loo for ko toogu noppoo di xey di ratam ratam ci kër jam fi ne foo ni sax yow. yow man ñaatu laa mos lekk sa kër bari wut hmm. altine nek talaata àllarba ak alkhamis hmm aljuma <laughs> ngi ci semaine bi di. yaa ngi ko semaine ba te yëgoo ko de. waaye matul <laughs> ma Mbaye da xaar ni léegi tey mu ñëw incha la bëggoon a ñëw sax xam naa ne xalt xalt yi tey suba bi ñu ma ne ko damay xëy nii léegi nag comme wàcc naag yooyu ma ne naa fërbët ko bu ñëwee ma ko rek teral ko xam comme Sëñ Tuubaa na ko teralal gan ñi wàcc lale ko nee na ñaari keef yi ginaar ba ci giléem nan ko ko terale waaye xam nga gi nam daan demee rek gan ñi ñëw raakam raakam ji sëf nag yi xar yi kenn ku ne ànd ak sa morom amut takk masque amut laal alcool amut waaye ren gis nga suñ bas discours bu am solo la wax waaye nag lépp ak mbas mi dugg ci réew mi lépp ak seen waay lekk unk ba andil ñu lii. déggoo li ma la wax sëñ bi noonu mu ko waxee. Hmm. noonu lañ koy jëfe nee na képp kuy ñëw. ci hmm. màggalug Serigne Touba gi di màggal ak maamam bi. Hmm. booy ñëw. lépp luñ la sart la teg ci yoon wi. dëgg la na nga ko tegoo baag si. te booy ñëw. da nga indaale masque. ndeysaan waaw loolu dëgg la. te ni ko sëñ waxee. ku ko deful noonu. dëgg la yaa sëñ bi. sëñ bi sëñ bi moom li wax lee sëñ Bass nee na na màggal gi danañ ko def nag waaye nañ koy defee ak nañ ko daan defee daa wute nee nañ takk masque yi te ba noppi maanaam yenn yenn kii daal comme comme nu ah comme maanaam contact li mbëri def nu mu tudd. contact contact amul amul comme jékki-jékki jaxasoo ana waa Rissa Toll ana waa Ndar yooyu il faut interdire affect d'abord waskenk line immédiatement. te nag. Hmm. waa ak lu xin melaw. waaw ñi nekk ci jumaa ji. dudd ngay jàmbar nag. waaw yow ma xay yow sëñ bi amul cuune. wax nga deug de sëñ Ya cuune yaay nga ma de yaay nga ma de waay yaay nga ma de yaay nga ma yaay nga ma te nag ñoom nee na dina nekk ci buntu jumaa ji la képp koo xam ne nag mhm. yaa ci barabu ko tedd gi wala yaa ngi siyaare ku mën di mhm. sa masque mhm. takk tayit maanaam dafa am waa xidma dafa am lu ak way de eh, seen rek bonde may interdit affect d'abord in ma waaw léegi nag boo defee li ni bañ nga wax kon nee magal gi li fi ñepp defon lay def nee du ñëw wara yok di wañ li ay wajurum daan def lay def ndax war na laa lenn 1895 biru ba ca ndar seigne touba waxu ñaaram ñaaram mi jéggi ñepp jël loxo bi teg ko ci jiw tubaab bi niko ko mu damirul umur kàcc nga 2000 seigne mounta eh xam nga limay may wax ak ñi magum murit li wat waaye ñi wuy ma 18 18 jours des magal ñi ñam contact mag yow ñi ñam contact bu yebal nga quarantaine sa bopp 14 sur rek xolal li rek daanu nga waaye fi mu am nañ contact dalal dalal ay wa laa ilaha illallah nugum señ bu mag bi xajul si nopp alaykum wallaay alaykum maaleykum assalamu alaykum eh jël lii defal nak defal nak dégg bari bay mari ah. arrière il faut distance avec 1 m 50 wa Cheikh bi ah, pour virus avec 2020 sur le Macky Sall nangam nangam way nak di nak du di xamé mo la ko nag jig ji jikko xamee moo nga wara a amna lu xew gan yaatal defal ndank gan ah. yaatal waye gan timit teelu aduna du ni da ngay tey ci xewi yi bi xana déggoo discoursam bi ci lan magal gi na da amuk soppi yow whatsapp nak yow all bi nga tolak ak mboj ak góob ak lu ne nga ne bu ko nala yónnee wat ki bi audio whatsapp bi nga deglu ko yow nugum wa gi nga sa keur gi mhm. sa sak bi dong la fi jeppel deug la tey aw ma toogaay mhm. ci bi dekk balay dug moy mooy na keur kër salif gay keur kër ismaila mbak keur mhm. kër Khadim mbay euh, keur sëñ Sidi mbak xelkom ay gëléem lañuy fat ay nak xar yee jalaa ñoo ganaar yee suqi jee saaf yee sàq mi seeñu ja léegi na ay jali ndawal yoo xëy na si maanaam yàpp waa day jalaa ñoo sëñ bi ma maaleykum salaam waaw waaw saa waaj sànq maa ngi lay ziar waa dama sama gan gi laay waxtaanal lu laay màggal gépp noos la ko teg rek da nga cere yi mbaa dalu ngeen bu baax alhamdulilah tabarikal sama gan a Baye Mbaye ñoo fawandoo defandoo lépp waaye dafa xorom buñ gisantee daal te yabante loolu ndeysaan wax dëgg <laughs> kaña ñoo dàq doo si ndax dëgg la ah lépp ñoo ko defandoo mértoog waaw <laughs> te kaw ba jàll ñu ñu dëggal xam nga ñaar ñu mënon dafa gis ak rek sang bi ñu dëggal baax dëgg la moom daa yaakaaru ne màggal gi moom sëñ bi saaf ak suqee ko durus ci ndawal gi rek la ko jàpp woon ma ne ko màggal gi ci la dee dëgg la dëgg la wallaay wallaay dëgg la comme noonu wallaay ndeysa li ngeen def nii ber rek jaamu yàlla dëgg la loolu mooy liggéey bi ndax ñun ñi tàmbali nañu kaamil ci mbooleem jumaa yi dëgg la ndax xam ngeen Tuubaa li fi nekk mhm. ëpp bu ñu ko xaymaa ëpp na ñett téeméeri jumaa ëpp na ko masha Allah ëpp na loolu bis bu ci nekk incha allah des na fa def ay limi alxuraan wàcc ngir yàlla dolli jàmm kenn du suñ tug ak naa de waaw ma la mhm. maanaam yor sa course naan jërëjëf suñ tubaa rek moom loolu bokk na ci lu ko gën daam waaw suñ tubaa jërëjëf suñ tubaa moo fi des ci liggéey lu ko gën daam laa wax waaw moo fi des ci liggéey jërëjëf jërëjëf suñ yàlla na yàlla defal la jàmm xew lu ko gën amul baax na jërëjëf sang bi kontaan nañ baax léegi ma ko leeral leen ko kii ku bax la ah. kilifa la ah. bala ma gëm di bokku tek ci mag ñoñu seuti mag ñi and ak señ beeg yoy ci neeg bee la ne sama wenn sama wenn señ bu bax señ Cheikh walu Cissé mo ma ak mom nima fatal mako ndax nit ku jàng la ko sori ma fat ko waye mom sax amu problème hmm. waye mi ngi fek nguur so xamni hmm. gatt na bari affaire hmm. ne ci kër gi loox looxi señ bi toilette yi bu ci duggé bala gënd ñepp ci japp da ngeen daje ci toilette da nga dem toilet da kii de sa jëkkër na dem toilet ñuy wax ñu naan waa Touba sa kanam sa ñaar téeméer hmm. fa laa ko bëgg da ngaa bëgg jënd carte Touba sa kanam kontaan naa ci yow yow ba fi toogee ba lépp kii kii yay na la Touba sa kanam yow naan ginaar xoole kii nee ñaar téeméer sa bisaab ba nga jaay xanaa bisaab balaa jaay moral jaay ginaar moral yow sa ndawal ndawal dund del jaamu tey maa jox fa woon noonu xam naa la am ngay bàkkaar de. waaw baax na sa ñaar téeméer yow dinaa la yóbbu Touba kanam nga dagg ci. Touba kanam fu mu bu la neexee. nga dag dagg ci carte bu la neexee woote seen numéro jumaa ja wala marché xayra fa la seen si ne ñaar téeméer weeru ne murit bu ne war na koo mën. dëgg la sëñ Touba li ko nag sang bi. andi rek yow it boo këppoon kafe jàmbur ci yoon nooy def juróom benn téeméer nit dana ko wax door di waaye ma ci Touba nak nga fay legui nag wax ji du loolu hmm. fan lañuy dal nek be nak la len don moy nek ba nga ki won daw ba nga la noonu mooy néeg booba rek roq ba don sen defar nako de nek bu fa ginaar yi nañ ci ron lal ga dafa nen sax nak waye moy to ko boobu ginaar gaang fa batay waaw ginaar ga gay nit géere ñun dekk señ bamba gi fu way tudd bax na ñun dal magal man leen gi bo mako ko laalee ci ëtt bi ma wa mo la tam nee nak day boobu de par 42 lay jur mo tax dégg ni yéen nga ngi ci nek wa baax na kon kii le bu kay na ma dagal len carte ba ci kanam te ñëw ah waaye dëgg la dégg mo bax ta yaru kullu jigen da gën ko cee doon jambar yi mom gisumako ko xamni foot ak balek passé deg ndigal tok bo xaree sa ngaddu guro jox ko wenn bilaay ñom ñaar dañu yàgg nak ndaysan ba ngi fatte ko ba bëggante ñom ñaar ñu deman di waxari ndaysan sa waa tek ci bu ndigal nan ko nan ni wala dañoo tanon nak walis <laughs> na walis ndaysan mu ne ko mo walis rek degen génnal mu ne ko wuri ci ci ci degen daan xamna ni bay mbari gëde daw génn ndaysan bisabu yaay ba mu jaay jox bay mbari tey